aljuma fukki fan ak benn ci weeru novembre ma di leen dalal jàmm ci xibaar yi bokk na ci ponk yi ci gën a fës ndawi APR ga ñu teg loxo ci coowal xeex ya amoon ci kii ba ñu jàppoon ca juróomi membre garde rapproché bu Ousmane Sonko chauffeur am bay tam mujj nañu ko libéré Pape Alé Niang ni ki démb la ñu ko transféré prison wu Sébikotane danañu leen faram fàcceel ci digg xibaar yi kàddu ya ca maître Ciré Clédor li yëkkati daañu leen dikkal tàmm ci lakk gu metti ga am jokkul ba ab soxna ñàkk ca bakkanam moom ak liiram bi am juróom benn weer ak jànkam ba a waxtaan wam yaa gisee sekk ak sunu ay naataango ak xabaar ya mu joxe ci digganteem ak borom këram nga mu tàggool daañu leen ci dikkal tàggat yaram moo di ca toftandi ni ñu koy defee saa su ne rek mbokk yi ngeen taaxirluwaas lëf bàkk ba jip ma daal di leen koy yaatalal mu ngoog bàkk ba jip na nuy naa leen bu baax a baax yéen ñi safoo di ñu teewlu ci sunu gaal 24 dal leen jàmm ci xibaar yi teg nañu loxo geneen nit ba placé ko sous mandat de dépôt ñeel coow la amoon ci ki bu nu sukkandikoo ci les échos ndawi APR gi di Omar Jonn doon wax ni victime la moom la ñu jàpp ginnaaw plainte ya waa Pastef jébbal la ñu ko daal di jàpp Omar Jonn ci moom la coow li yépp tàmbalee moo di rakk Fatou Jonn ma di responsable politique ca APR ñu dénk commission ca présidence Omar jon ña nga di ko toppee coup et blessure volontaire Mamadou Lamine Diama talaata gi weesu la demoon brigade de gendarmerie wu Saly ni mooy njiital kuréelu Pastef gi Ousmane Sonko teg si dafa demoon ngir ba ca ëllëg sa ñeel coup et blessure volontaire ba noppi ci la ñu ko dox di libéré ñaari nit ñàkk nañu seen bakkan ci ab accident de la circulation gu amee ci tali pir gi foofe ca Tiwaawoon ñaari woto yu ndaw ñoo fa laalante ba nga xam ne rek benn chauffeur baa ngi doon jéem a roppi morom ma ci la laal woto ba daal di ñàkk contrôle am wàññi nañu itam ñetti nit yu ca ay gaañu gaañu ni ko xibaar yi xamle njàkkaretis moo am ca Tiwaawoon ginnaaw mu si bëgg fa wàcc ab gu nekk ñetti at moo fa réer lu tolloog ñetti fan su démb gi lañu ko fekk ci benn teen benn jardinier moo doon wut ndox ca teen ba mu seen néew gune gay flotté ca kaw élément yu commissariat urbain bu Tiwaawoon ak sapeur pompier demoon nañu ca bërëb ya kawteef ga amee sapor pompier ñoo génne néewu gune gi ci teewaayu commissaire Ibrahima Diouf ak ndawam laaj ga ca toftandi moo di la gune gi def rek ba dugg ci teen ba l'enquête baa ngay juge Mamadou Seck moo ko placé sous mandat de dépôt ni ki baax ki démb Pape Alé Niang yàggul maison d'arrêt wu Rebeuss patron wu Dakar matin gi jàllale nañu ko prison wu Sébikotane mu di décision bu maître Ciré Clédor Ly nakarlu ndax nee na autorité judiciaire yi dañu bëgg a sappe défense journaliste bi ndax avocat yi duñu mën dem ba foofu di waxtaan ak moom ci lu ñeel dossier gi maître xel na ñaar tam ci ab woto gu mën a jëlee seen client prison ba di ko yóbbu bureau juge d'instruction ñeel audition wam Pape Alé Niang la ñu di ko toppee mi ngi yem ak divulgation de documents militaires sans autorisation de la hiérarchie de nature à nuire à la défense nationale d'appel à la subversion recel la diffusion de documents administratifs estampillés secrets ak itam propagation de fausses nouvelles Alpha Yaya Barry ma ñu wax ni terroriste la ña ngi ko jàppee woon ca diwaanu Kolda euh, enquête bureau antiterroriste gi la mu wane moo di ne rek waa dafa bëggoon créer rébellion ca Guinée visé woon na itam ay réew yu ci mel ne Sénégal Mali ak Burkina Faso Alpha condamné woon nañu ko ci mbir yu ni mel atum 2008 ca Pologne mu fexe ba juuxaat biir Kédougou ga mu tàmbali woon di tabax benn centre de formation ngir ay recrue DEA ma ñu dénk mbirum trafic ak distribution de drogue ca États-Unis ñoo doon ko wër di ko toppee trafic international de drogue dure acte terroriste participation a un groupe criminel ak construction de bâtiments en dur sans autorisation kawteef moo am ca quartier Grand alximis alximisu démb gi benn ressortissant français gu toll ci juróom fukki at ak juróom la ñu fekk këram mu ñàkk bakkanam xibaar yi xamle ni corom wi moo njëkk a gis néew bi takk der yi ba ñu ko yëgee demoon nañu ca bërëb ya fekk ko ca wanag ba gannaaw ba ñu nee rek foofu la ñàkkee ya bakkanam gannaaw saytu ya ñu fa amal sapeur pompier yóbbu nañu néew bi l'hôpitalu Grand Mbour ngir def si autopsie coroom yi moo di ne rek dafa toog ñetti fan yu mu ko déggul téléphone am di sonné rek te kenn du jël eh, ci la dem këram ngir seeti ko xool la ko dal waaye nag ba mu demee ca wanag ya la ko fekk fekk rek génn na àddina eh, jokkul juróom-ñetti kilomètre moo dox digganteem ak Kébémer ab lakk gu metti moo fa am di beer weeri fan ci weeru octobre ay boori 14 heures eh, la ko wundu di ab explosion wu gaz soxna si ñu naan Kumba Fall doomam Issa Gaye mi toll ci juróom benni weer ak jànkam ba doon ko liggéeyal ñoo ca jëlee ay gaañu gaañu hôpital Amadou Sahir Mbaye bu Louga liir ba génnaat dina talaata benn fan ci weer wi jànk baa nga wuy ji boromam ñeenti fan ci weer wi ñu nekk Kumba Faal itam mujj na génnaat dina talaata gi weesu ab suux su di wax ni jànq baa doon defaree café ak gaz ba ca weti ndaw sa yoroon doomam ja fuite moo am ma war a rek lakk gaw am mi yaa gisee sekk na waxtaan ak sunu naataango yu l'observateur baa du ci digganteem ak No Face mi yaa nee na groupement ba amatul loolu weesu na moom kon ñoom ñaar ñëpp ay jullit lañu te leen seen diine digal la def nee na ne nii nag bëggatul bëggagul dugg ci sujet bi waaye li mu mën a wax moo di ne dund na ay mbir yu metti te pareegul ngir àddu ci terewul nag moo di bàyyi doomam ju jigéen jooju loolu nag rek dox seen diggante fi mu ne nii waajagul duyo ak moom a jamono jile Samba Ndoye ab mécanicien la amul lu muy def nag lu may rek sàcc moto wu police su Grand Dakar ga ñu a xamle démb la ñu doon ko àtte Samba cousin la ci secrétaire commissaire de police bi la mu wax juge bi moo di ne rek dañu sàcc moto bi nee na bésu fukki fan ak juróom-ñett la jot moto bi waroon ko defar ñu sàcc ko Samba di woyal naan dana versé rek cent cinquante mille ndax valeur moto bi weesuwul deux cent mille élément yu njëkk yi ci l'enquête gi di wane ni dafa waxoon takk de yi ne rek moto bi pare na ngir mu jébbal leen ko mu joxoon leen délai ñeenti fan ñu sàcc na ci ndoddam benn weeru kaso gu muy tëdd tàggat yaram lañu koy ndar képpee ni ñu leen ko waxee woon rek ci bopp bi mbokk yi amateuru football yi mënees nañu ni rek bi la conférence la ñu doon xaar ñoom ñëpp démb ci aljuma ji Aliou Cissé publié na listu 26 lion yi war a teewal Sénégal ca Qatar ba muy jël kàddu nag rendre na hommage kii di Salif Diallo ma génnaat dina lu yàggul dara coach bi nee na constance ak équilibre joueur yi la defee tànneefam gardien ya nag di Edouard Mendy Seny Dieng ak Alfred Gomis défenseur ya Kalidou Koulibaly Abdou Diallo Pape Abdou Cissé Ismaïla Jacob Fodé Ballo-Touré Youssouf Sabaly ak Formose Mendy milieu de terrain ya kii di Mamadou Loum Ndiaye Idrissa Gueye Nampalys Pape Gueye Moustapha Nam Pathé Ciss Pape Matar Sarr ak Cheikhou Kouyaté attaquant ya di Sadio Mané Ismaïla Sarr Crépin Diatta Iliman Ndiaye Boulaye ja Bamba Dieng Nicolas Jackson ak Famara Diédhiou Saliou Ciss du jongante ci coupe du monde 2022 ji la mu amagul club moo waral lu ni mel ci janoom baak taskatu xibaar yi sélectionneur national gi xam ne na ni rek juróom-ñaari at yi mu fi def kaaw Saliou Ciss bokk na ci décision yu metti yi mu jël Sénégal te Sénégal nag toll na ci niveau bu nga xam ni faaw ñuy bàyyi xel critère de sélection yi ndax mënul convoquer joueur bu amul club dafay baax nag ñuy jox signal gu fort joueur sénégalais yépp te bokk na ci critères yooyu mooy nga am euh, club joueur bu amul club mënuñu ko sélectionner fenn ci institution wu équipe bu Sénégal loolu nag du ab manque de respect ci Saliou Ciss ñoo ne wandoo woon nag moom ci parcours gi te yaakaar na ni nag dana delsi ci sélection bi bu situation wam changé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 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa laadum da ciy gën te bu ñee nee góor tax